dama bëgg nit ñi di xam lu ne bala ñuy soow xam lu ne nu mu demee naan la waaw ngeen déglu ko bu baax de parce que nit ñi dañuy soow te duñu xam lu nekk lan la mais avant gàmmu bi di ñëw mu ni ma dama bëgg a def ñaari waxtaan ko waaw mu ni ma benn bi Dakar laa koy defe benn bi Tiwaawoon ma ni ko bu dakaar bi fan nga bëgg ñu defee ko ko ma ni ko fan fan nga xalaatoon mu ne ma noo seetal rek

ma ñëw seet ji Alaaji Maodo Sylla wax ko yóbbante bi mu ni ma wax nga ma lu ma kontaan maa ngi sol sama dàll léegi dem seet ministre bi nga xam ni ci moom la ñu aj grande mosquée bi te mooy le ministre de l'intérieur il n'y a pas de problème Je ne ban ban waxtu lay dellu si suba pour nga ma réponse bi que ma suba ci même waxtu cinq heures pour dellu réponse bi te suba cinq heures ma eu pour jël réponse ñu ne ma Alaaji Maodo nekku fi dem ci beneen kër soxnaam bi ñu nekku fi ma demaat ci beneen kër soxnaan bi ñetteel bi ñu ni ma Alaaji Maodo nekku fi ma dellu ci Sëriñ Cheikh ni ko Alaaji Maodo ko dafa waxoon ma dellu si pour réponse bi mais dem naa ci ñetti kër yëpp fekkuma ko fa mu ni tekk ba ca yàgg mu ni ma dem leen seetee stade Demba Diop Je ne sais di du war poser problème yaakaar je ci waxtane ak Lamine Diack du war poser problème ma dem seeti Lamine Diack ko nous dafa bëggoon def ñu stade Diop grande mosquée la ñu bëgg waaye El Hadj Maodo mi ko waroon a dox dama fa dem ñetti yoon fekkuma ko fa te date bi góor gi bëgg a def waxtaan wi fii ak une semaine la ma ne ko ñu bëggoon nag boo ñu mënee toppatoo stade bi pour góor gi defe fi waxtaan bi

ma ne ko di nga def waxtaan bi mu ni ma fan man ne ko may ma daal di dem daal di dem foire ba laajte salle bu mag bi ñaata lañ ciy fay toog ak directeur bi mu ni ma ban ngeen ko bëgg man ko samedi bii di

nekk jot na ordre bu jóge ci kaw ñu ne ko il n'est pas question pour Cheikh di def conférence foofu dama bëgg nit ñi di xam lu ne bala ñuy soow xam lu ne nu mu demee naan la wa wa waaw waaw wallay dëgg la voilà, voilà. Voilà, Wallahi dëgg la dëgg la ne ni il faut faire très attention parce que nit dana qui ci dara wala mu jël position qui dara nga di ca wax te la nek sabab ba xamulo lan la wa, wax na deug wa de

mu daal di lay ni ma noo date bi dama juumoon seetuma ko nangam nangam man ko seetal ma date yi fi libre yëpp xam nga pexe amatu ma ne ko foofu date libre rekk seetal mu daldi xool xool daal may jox benn date ni ma waa bii mën naa nekk ma ne ko ba tey baax na ma ñëw wax ko góor gi jóge fa directeur bi téléphoné ma ni ma waaw d'accord nañ ci mais le ministre de l'intérieur dafa wax ni nag seen nit ñi bu ñu génn enceinte foire bi ma ni ba tey ne moustarchid yi ñëw mais foir bi yaatu na nañu fexe fu ñu mën a dugal nit rek ñu dugal ko fa te wut ay écran géant motax tax sutura yàlla yaatu na waaw ah, ca la soog a conférence mais li ci gën neex ci conférence bima ma annoncé ko ni góor gi dafay génn maanaam wax ko njabot gi njabot gi commencé di ko waxante ci sen bir le ben mak wote nit ñi ñëw mu ne da fay fen Cheikh Tidiane bu génné fi rek kuma ma gisati neem xaj bi waxtu wa jot

منة إلهي فاجعل أهلنا أهل غربة لون لاي فيري دي مانا ام لو خامني كوكو دوندو تا دافاني دافاي يومبو بامو جيخ بابا خامو لولو خيو